important qu'on soit délivré à l'assistance. Chers camarades de l'Alliance pour la République, chers camarades de la plateforme Mali pour 2024, chers des médias, la plateforme Mali pour 2024 heureuse de vous confier ce ici au siège de l'Alliance pour la République pour échanger sur l'actualité politique. notamment autour du grand rassemblement citoyen pour la paix et la stabilité que nous comptons organiser le samedi juin à la place de la Nation à partir de 15 Nous voulons, à travers ce rendez à la mythique place et symbolique de la Nation, rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais autour de la préservation de la République, qui nous est chère à tous et aujourd'hui fait face à d'innombrables menaces. Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique, à la violence verbale, aux attaques de maison d'autrui, donc je peux que ces attaques ne sont pas du tout justifiées. Je voudrais également... Merci beaucoup. Notre démarche, notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique et à la violence verbale, aux attaques de maison d'autrui. Tout cela simplement parce qu'on justifiable, qu'on justifiable, comme vous et nous, chacun ici refuse d'aller répondre à la justice. pour des faits qui relèvent de relations purement privées. Mais voilà que ce monsieur Ousmane Sonko, pour le nommer, se justifie, se refuge dans des propos incendiaires et autres aspects insurrectionnels au lieu d'aller tout bonnement assumer ses responsabilités et faire montre d'un respect des institutions, notamment la justice. La seule chose qu'il aura finalement réussi est d'amener à penser qu'au Sénégal, il y aura péril en la demeure, alors qu'il n'en est absolument rien. Notre rendez-vous du juin démontrera, si besoin en est, que le Sénégal reste une terre de paix, d'hospitalité, un état de droit avec le président Macky Sall toujours bâtisseur mais également balisant très clairement la marche vers l'émergence enclenchée depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Fort de tout ce qui nous tenons à rappeler également à M. Cheikh Tidiane Gadio que oui, le président Macky Sall sortira par la grande porte parce qu'il aura été jusqu'ici le président qui aura poussé le plus loin le développement économique et social du Sénégal. Et celui qui aura, entre et avec l'exploitation du pétrole et du gaz, avec la souveraineté alimentaire et énergétique. tey defe naa ni képp kuy toog rek engagement moo la fi bàyyi loyauté moo la fi bàyyi. waaye ñëpp Sénégal moo la fi bàyyi kon ñu félicité ñëpp di wax ni engagement boobu tey tey la war a gën a entré tey la war a gën a nekk lu ñu gëm ndax nag république bi dafa am ñu di ko salfaañ te loolu waruñ ko mën a nangu pour ñëw ci question suñu euh, frère journaliste bi ci maanaam jàmm ak troisième Sénégal defe naa ni taarixam ku nekk xam na ko dëkk bu am démocratie dëkk bu am yoon dëkk boo xamante ni institution yi ñu te ci réew mi dafa am lu ñu tuddee conseil constitutionnel conseil constitutionnel boobu mooy jàmbar mooy xayma mooy natt candidature yëpp te bis bu nattee ni candidature président Macky dafay ñaan bu boobaa baat bu ci tegu comme na ko président Macky Sall defee woon ca 2012. bañ ne candidature président Abdoulaye Wade dafa jàll dafay bàyyi woon lépp lu mu nekkee woon dem campagne bi réew mi jox ko loxo defe naa loolu mooy suñu ñi nga xamante ni tey gëm nañ ni ñoom ñoo suuf président Macky Sall def ci dëkk bi ma ni lamb jaan boobu ku mën dem bàq bëri ñu xool kuy naan waaye ki nga xamante ni dafa am ki nga xamante ni réew mi moom lañ jox loxo ndaw li ñuy wax mooy jàmm yi réew ñoomu ñuy wax ci loxol président Macky Sall la nekk amul jàmm mooy ñi yor seen alal di taal nit ñi di taal kër yi taal sax kilifa diine yi kon ñooñu loolu dañu amoon ci li ci jàmm jooju jàmm ñi ñu respecté yoon ñu respecté institution yi ñu respecté réew mi waaye ñu respecté sénégalais yi nga xamante ni bu élection jotee ñooy fal di formité sénégalais yooyu ñoo fal président Macky Sall di wax ni rek beneen message bi ma bëggoon a lancé mooy sénégalais yi lii xew war a intéressé ñëpp la war a interpellé ku ci nekk tey xëy nga gis vidéo boo xamante ni suñuy doom suñuy rakk ñoo fa nekk taxaw sol colin boo xamante ni war na interpellé ñëpp defe naa ni affaire yi suñu côté boobu tànk bi waaye suñu camarade yëpp suñu Abdou Aziz Al Amin da daa wax naan boo nit bëgg koo ñëw fekk say loxo fokkati ko lu mu ko jaral benn na la ko jaral surtout lu mu la kon nag yéen xaayaa ku dégg séeréer waa waa affaire laay wax le 3 suñu bis la waaye yeneen yi bés dina am bu weesu le 3 wala avant le 3 donc il faut être merci beaucoup